téléspectateurs yi man la Mame Thierno yéen a ngi fii seen émission xew-xew ñu ngi si ànd ak euh, Serigne Bara Serigne Bara Ndour président des marieurs ak assistante am Soxna Fat Diallo xam nga jox euh, suñu invité ñu présenté wu. waa asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Bara Ndour la tudd di président des marieurs de Hann Bel-Air ñu ñëw nag tey ci émission xew-xew Euh, war cee jàkkaarloo ak suñuy naatango euh, ci kattanu yàlla euh, ma bàyyi leen ñu présenté wu rek bu ci kanam tuuti incha allah. asalaamaaleykum mbooloo mi man la Fat jàll assistante des micro mariés du Yaraax ba ñëw assister ci télévision xew-xew pour ñu wax sunu naqar ak sunuy mébét ci biir géej gi. kon su ko defee ñu. commencé émission bi léegi sëñ Bara dama am question bu ma la bëgg a laaj xam nañ ne euh, liggéey moom du da nga saay rek nekk au sommet di nga tarbiyu jaar si fu gën ndaw doon ay apprenti mareyeur dem ba léegi nga nga doon mareyeur léegi dama la bëggoon laaj nan liggéey bi nan la demee nan nga Jare, na nga joge si marier yu ndaw ba doon président marier ak yow nan nga ko dundé comme euh, ni nga ko waxé rek aduna euh, bo si nekké da ngay tarbi euh, man bi ma jógee fi ma dekk moy kaolack bi ma ñëw ma ñëw yaraax mais bi ma dama dal ci ben sama ben mag bu ñu wax abdou diagne bon di ligéndo at Euh, ñu nekki aussi nekkin bu rafet parce que aussi euh, ak nu mu munti demee daal foo nekk il faut nga wane fa yar ak teggin xam nga ak jom ak fulla ak fayda voilà merci loolu daal laa fi nekke woon ci jamono yooyu euh, ba yàlla dogal mu bàyyi ma liggéeyam ay at daanaka defatul dara man maay gérer lépp ba suñ borom yàlla tamit dogal tey mu mujj génn foofu ci njëkk ak teraanga nag te muy rafet tamit. Euh, parce que tamit euh, nit bu fekkee da nga nekk ak moom. même bu fekkee ëllëg yàlla dogal na ngay berse liggéey tamit. Hmm. na doon loo waxtaanee ak moom ba pare. Ah. waa ñu waxtaan si bon yàlla dogal mu nangul ma loolu. ma génn dem ber samay daaray bopp. Hmm. voilà macha allah mu ànd ceeg man tamit. voilà di ci jàpp ba instant bi daal. waaye dama bëggoon xam ne nan nan nga nan la demee ba ba nga yegg président bi Marieur. waaw euh, taxawaay bi mu ngi commencé ci euh, liggéey bi d'abord parce que ay nit boo nekkee ñoom il faut nga am loo wone euh, loo wone mooy jom fulla ak fayda xam nga liggéey yooyu boo ko wonee béréb ak foo munti dem ëllëg am na loo xam ne mu ngi lay xaar ci ci kilifa yi fa nekk parce que foofu maa fa gën a doon ndaw ay mag a fa nekk ay ay ay ay pam ñoo fa nek ay mag yo xamne ne ñoo ma mag fuuf fa bon affaire président bi mu ngi tambalé ci euh, union nationale des mareyeurs du Sénégal euh, bi ñu ko sosee biñu ñu union nationale des mareyeurs du Sénégal euh, sosee ko fële ci Fass boy Sénégal gep daje fa mareyeurs yëpp mareyeurs du Sénégal yëpp daje fa waye gox bu ne tamit am président fal président

ñëpp ñëw bi ñëwee euh, ñi ko bëgg a def ñi ko bëgg a doon yëkkati loxo yàlla dogal ñu fal ma ci ni la président des mareyeurs de Hann Bel-Air demee. wax si soxna si si assistante am léegi soxna si comme li ma laaj euh, Serigne Bara Bara nduur rek laa la bëgg laaj. Mhm. assistante assistante bi nan la dikkee ak nan nga koy dundee. xam nga jigéen dëkkul kër baayam sama borom kër moo ma fi indi man maa ngi dëkk si Sébikotane ñëw ci géej gi nag ginnaaw waay fu mu nekk day daan dooleem ma gis ne géej gi rek moo am yaraax ma daal di dugg ci géej gi commencé di liggéey sama liggéey maag présidente bi ku ñuy wax mbugaan ba ñu nekk ci géej gi daan doole rek lañu santaane ñuy daan foofu suñu doole bu géej gi amee jën ñu ngi ci jën yi jënd di saamaan micro moom day jënd di saamaat wala jënd teg benn place ku ñëw mu jaay la noonu daal lañu ñu nekk rek si biir si géej gi waaw. si dama bëgg xam comme nekk si liggéey boo xamante ne maanaam góor ñi même su si ëppul sax mais ñoo si ëpp impact nan nga koy dundee parce que euh, géej bi lu luñ seet lu bari mooy. Euh, mareyeurs yi la plupart ay góor lañ léegi ay ñiy nappi tamit ay góor lañ léegi euh, nekk si liggéey boo xamante ne jigéen yi minoritaire lañ si est que loolu facilité na la sa liggéey. encouragé ginnaaw foo nekk rek da nga war a liggéey te liggéey jaamu yàlla la. man ma ñëw yaraax nekk si géej gi rek di liggéey waa mbiru jën yi su jën amee ñu jënd jaayaat su jën amuleet ñu toogaat rek di xaar ba kera yàlla di indi jën parce que géej moom. yàlla rek moo ciy may doomu aadama waaw la muy indi ñun xamuñu ko dañuy toog rek di xaar bu jën yi ñëwee ñu daldi ci liggéey jën da di jaayaatu noonu daal la ñuy dunde ci géej gi waa sëñ sëñ Bara kon ñu dugg ci vif sujet bi parce que li seetlu ci Yaraax surtout fii ci entroit euh, mooy ñaari kee lañ fi amoon amoon nañ kee bu nekkoon fii côté be am kee bu nekk fee gaalu kees léegi kee keewu gaalu kees bi moom defar nañ ko ba mu baax ba nit yaa ngi siy liggéey léegi fii nag dañoo jële woon ñu fiy liggéey après ñu wax leen ne euh, dañ koy defar suñ ko defaraatee après ñu ñëwaat fa ñu yóbbu leen euh, euh, si côté marinage yooyu noonu foofu nga xam ne dafa ruqee nit yi mën nañ ñëw sax am na ñoo xam ne yàgg nañ fi ñëw duñ xam ne kee bi foofu la nekk te seetlu nañ tamit transféré bi ñu ko transféré foofu yàq na liggéey ñu bëri nekkul liggéey ñiy liggéey si jën yi rek mais ñi loon liggéey si kee bi di jaay ay euh, nappkat yi suñ ñëwee ñu jaay leen lekk wala yooyu noonu gis seetlu nañ ne daal fii euh, économie bi fi amoon wàññeeku na bu baax a baax léegi yow lan mooy sa xalaat si loolu. Euh, loolu dama ci kontaan sax nag parce que loolu lu jar a leeral la pour ñu bari. xamee ko ni mu demee ni mu commencé euh, bu fi mu yegg si parce que ñun ay marieur lañu euh, foofu la ñu nekk mais euh, jamono yu ñuy defar quai de pêche bi daa fekk ñun ay marieur lañ mais wàllu jiite quai yu di demee amaguñ woon accès pour mën a xam lu baree baree bare ci façon yooyu. Euh, bi ñu demee tamit ba yàlla dogal ñu xam ci dara booba tombe nag juste préfet ñëw fi ba joxe dédommagement yeeg yëpp pour nit ñi jóg voilà mais avant ñoo jóg euh, dañu waxoon ne dañuy defaral quai de pêche maanaam oto yi dañu ne ci suuf léegi euh, lépp lu ñuy defar ñu defar ko ci kaw mais suñuy oto moom day mën a nekk ci suuf plus presque une cinquantaine de camion loolu waxon nañu ko mais bi démé ba ci biir ba affaire bi commencé ñu doora génné plan bi biñ débuté ba pare ba lepp jog fa ñu door a plan bi mais d'après euh, li ñu défar ni ak li ñu ñu waxoon sax bay doon ben parce que li mom kep ku nekkul sax marier war nga xamné du quai de pêche ya mm-hmm. li du quai de pêche chambre froide la chambre froide boo xam ne dafa dafa ànd ak ay usine glace moo fa nekk ak ay bureau parce que dem naa fa visité naa ko ak ay bureau yoo xam ne eh, ñu ngi si biir loolu moo nekk ci biir complexe bi liñ fi defar mais oto moom bu dee yàlla dëgg rekk la bëgg amul frigo boo xam ne mën nga ñëw mën fee jël jën pour mën a dem waaw léegi daal si sa ci gàttal frigo bu fi dugg daal xam naa ne da ngay indi produit pour euh, pour euh, pour euh, chambre froide bi wala ngay jël produit pour dem loolu daal laa fa gis mais pour oto frigo ñëw taxaw fa yëpp fa jën daal man ni ma gisee ñu liggéey ko gis ma loolu. waa mais loolu jàpp nga ne est-ce que loolu day yokk dara ci seen liggéey wala daf koy wàññi parce que man li ma seetlu depuis bu ñu dindee quai de bi fii nii. da nga doon avant ñu koy dindi da doon gis nit yi di liggéey fii jën yi di romb am na ñoo xamante ne sax duñ duñ jënd jën comme ñun ñu dëkk si côté kii bi duñ jënd jën mais léegi pour gis euh, jën rek day mel ne lu metti la est yaakaar nga ne quai de pêche bi ni nga ko euh, li nga si def noonu est-ce que day arranger liggéeyu mareyeurs yi ak nappkat yi wala daf koy wàññi. waaw euh, pour gis jën. kooku aussi ci waa beneen beneen beneen côté la beneen affaire la parce que jën bi. ñàkkum jën bi dafa nekkee ci côté biir géej kooku beneen étape la si waaye comme étape bu quai de bi fi ñu ci nekkoon fi ñu nekkoon par rapport ak fi ñu nekk vraiment ute na lu bari ndax euh, fii moo gënoon jege clients yi moo gënoon a jege aussi euh, tali bi xam nga moom la nit ñi gën a xam moom la nit ñi gën a ñeme aussi parce que fee booy xool benn benn benn kii la nii rek bu ñu fa bu ñu fa bu ñu fa yóbbu à l'époque buñu fay doora dem amul sax toilette waaw amul sax toilette amul mbar amul euh, fenn fo xam buy taw si tey foofu nga mëna dugg pour euh, pour pour seelu fa du naaj du dara kon fofu vraiment euh, nekkin ba doyna war par rapport ak biñu nekké fi parce que biñu nekké fi ci bir ben mbar lañu ñu nekkoon jigéen ñi aussi amon nañ ay à côté ay mbar yo xam xeyna même buy taw mun nañ fa ñëw tok

fee euh, yooyu noonu amu fa. yéen pour yéen jigéen ñi est-ce que kee boo kee euh, fee ne est-ce dafay yàq seen liggéey walla mën na yokk seen liggéey. waaw foofu ñu nekk léegi wax dëgg yàlla coono rek lañ fa nekke coono rek ñu jigéen ñi sonn nañ dadi gor mënta nekk di yuuxu wax dëgg yàlla waaye foofu coono lañ fa nekke amuñuy mbaar ñu ngi si naaj wi douze yooyu fa ñu fa jot a def président mareyeur yi moo si jàppani ba ñu defar fa douze ñu am tuwalet yu ñu mën a dugg bu tawee ñun dañuy daw wuti ci kër yi fu ñu làqatu naaj wi sunu kaw buñ fa niñ fa nekkee daal wax dëgg yàlla coono la coono la ñuy ñaan nag wallu ku ñu ci wallu ku ñu ci dimbali daal dinañ jël parce que xam nga ne jigéen xamul lu dul daan doole te jigéen ñi ñoom ñooy jàppale góor ñi ci kër gi bu si jegeen jàppul lu dara du sotti surtout nag euh, dem katu géej ci pêcheurs yi xam nga ne pêcheur nga dem géej amuloo jën amuloo dara jigéen jigéen jàppul ca kër ga kër ga du mën a dem ñun daal dañuy ñaan wallu dañuy ñaan wallu parce que jigéeni yaraax sonn nañ de ku ko wax ak ku ko waxul sonn nañ te nax rek la ñu dëkki nax rek lañu ñu dëkki waaw fii ñu jëkkoon a nekk dañu jóg leen boo leen jógee di ngeen delsiwaat ba ñu demee taabal bu nekk dangaa fayaat taabal bu nekk dangaa fayaat waaw ñu soog a mën a installé wu ci biir installé boobu amuñuy mbaar amuñu dara dara dara dara dara dara amuñu ko fa waaw bu ñu soxlaa ndox dañ daan génne dem dem ci kër yi ñu dendeel dem ñaani ji fa bu ñu soxlaa duus dañ daan dem ci kër yi ñu dendeel dem fa duus mais léegi président bi jàpp na ba ñu am toilette mais des na liggéey bi des na foofu parce que nit ki mënta toog ci naaj di fa liggéey mënuloo toog si naaj di fa liggéey surtout nawet nag bu ñëwee tamit mënuloo taw bi di taw nga toog di liggéey dañuy naan daal état nañu dimbali jàpp ñu defaral ñu sunu yaraax gi defaral ñu sunu tefes gi gannaaw yàlla yoon yonent bi tefes gi moom la ñu yaakaar muy waa yaraax ak ñeneen ñi ñëw jëggaan si yaraax yépp moom la ñu yaakaar parce que moom la ñu xam waaw yal nañu yàlla dimbali nag état gestuñu ñun jigéenu yaraax parce que sonn nañ lool ci tefes gi fi ñu yóbbu tefes gi léegi dafa sori agresseur yaa nga fa xale yi dañuy ñëw agresseur foofu léeg-léeg clients yi daan ñëw sax bala nga leen a gisati dangay sonn lool léegi dangay obligé boo amee sa benn client nga oo ko ne am naa jën léegi léeg mu ne la waasal ma andil ma te loolu yorul marché nañ ñu jàppale daal ci marché yaraax bi parce que jigéen yaraax sonn nañu lool. tey ci agression yooyu noonu nga doon wax ci laa bëgg ñëw hmm. parce que seetlu nañ ne. même su fekkee gó góor ñi agression yi dina leen dal waaye si si jigéen ñi tamit comme jigéen ñi góor ñi nañ xaw a mën défendre. waaye jigéen ñi moom mën nañ wax ne elles sont un peu vulnérables. Mm-hmm. donc euh, léegi yéen loolu noonu est-ce que du du tax ngeen xaw a tiit ba ba bañ a dem ay liggéey yooyu noonu wala agression yi mun da ngeen di dem noonu rek lu am rek baax na. oui parce que nit ki mënta toog doo liggéey boo liggéeyulee doo lekk doo naan. agression bi nag ñun bu ñu fa nekkee dañuy teel a ñibbi ñun dañ fi daan jaay bi marché bi nekkee fii ci biir nit ñi dañ daan jaay ba ay 10 heures ñu soog a ñibbi suñuy kër mais léegi ñi mettuñu ko 6 heures rek ñu buub suñuy bagage ñibbi waa parce que daal léegi moom foofu moom agression bi metti na fa xale yi lu leen neex la ñuy def amuñu sécurité nañu sé état dimbali si sécurité mu ñëw sécuriser ñu foofu gën laa yàlla ak yenn tabi foofu la ñu am laasu yaraax bi daal moom lañu am te ñun waa yaraax ñii xamuñu lu dul géej ci géej rek lañu ñu mën a dunde yore si sunu njaboot kon daal nañ ñu dimbali defaral ñu foofu ñuy nekk defaral defal ñu fa sécurité moom daal la ñuy ñaan. Euh, sëñ Bara buñ euh, buñ dégloo soxna si nee na euh, fexe ngeen en tant président Marie Yére fexe ngeen ba def ay toilettes alors ko foofu amul woon dara. te en ñoom dañuy dañ doon dañu waroon fay pour am foofu place léegi euh, si bu bu ma xoolaatee dama bëgg laaj léegi yéen vu que fii nii def nañ fi euh, seen complexe léegi lan ngeen euh, ban solution ngeen bëgg seen liggéey doxaat ni mu waroon dox mu doon doxaatee. waaw solution bi tey ñun buñ koy joytu dañ koy yenn état parce que état moo am compétence su defar quai de Euh, maire amul compétence euh, de faire quai de pêche état a am compétence de faire quai de au moins euh, même si fi auto yi nek ñu pavel au moins fi nga xamne tamit fofu nous tok ñu ñu ñu ba sécuriser parce que quai bi comme nous suñu yaay waxé quai sécurité kebi amul sécurité buntu yu bari na fu neex way jaar fu neex way genn kenn mënu ko sécuriser donte ñu ngi ci def ay djégo parce que euh comité bi fi nekkon amna équipe bu fi jëlon euh, presque 12 personnes di len fay 50 000 francs par mois euh tous les 12 mais bon dawal nañ ak mom dawal nañ ak ñom 6 mois mais bi ci bir 6 mois yoyu gisunu gisunu euh, ben changement après ci lañ leen libéré waat mais di seetaat yeneen façon mais façon yu ñuy seetaat mooy euh, euh, kii yi nga xam ne dañuy garder mooy maanaam ñi nga xam ne dañuy def comme ay sagam affaire yooyu. Mhm. yu mel noonu dem nañ ci ñoom. mais euh, prix bi ñu wax maanaam li ñu wax ne moom la ñu mën a sécuriser quai bi mhm. tant que defaruñ quai de pêche ba tëj ko ba mu am benn bunt walla ñaari bunt ñoom du ñu mën loolu. wala bok même bu koy def ak seeni i xaj prix biñ lay wax par personne 1 million 500 par personne wala 400000 par personne loolu doo ko mën xam nga par rapport ak li nga xamne ñun mom lañuy collecter ak li ñuy fay nit ñi loolu loolu ñun duñu euh équipe bi du ko mën moo ñu bàyyandi fii diko ko joytu nag guddeeg bëccëg suba ak ngoon parce que même commandant ñun dañu fay dem dañuy dem ci mom diko wax en général mais bon euh moom itamit mu ngi ci def effort. mais euh, kii am bëriwul effectif am daa xaw a xam nga effectif moom bu fekkee manqué chaque jour chaque jour ñii war a dem fii ñii war a dem fii boo ci bëggee boole kay de pes tamit moom liggéeyam day tardé kon ñu ngi ñaan état du Sénégal euh, comme ni ko ñëpp waxee yaraax kay de pes daan amul sécurité nañu dimbali ci poste de police wala boog mu. xoolal ñu beneen façon beneen méthode boo xam ne daal dinañ am sécurité mais poste de police boobu daal ñu ko koy ñaan bu baax a baax bu fekkee mu ngi ñuy dégg merci. dañu dañ doon dégg ne ñu ne dafa am doon gaal yu doon ñëw fii si yaraax léegi euh, daa am ay nit yu leen di arrêté nee leen dañuy am si jën yi soit duñu wàcc si si. si tefes gi léegi yow lan mooy sa lan mooy sa gis-gis. Euh, ni mu ko waxee dëgg la am na Euh, guddi googu yaraax daanaka euh, guddi gu metti la woon euh, comme li ñuy wax ci agression bi rek gaal teer yor jënam yow nga toog fi nga toog ne jën boobu da nga ciy am par la force wala jën bi du wàcc wala jën bi bu wàccee ma tuur ko wala xam nga yooyu aussi sincèrement par lu ñuy seetaan la mais lu jaaduwul la loo xam ne aussi euh, yàgg na ba tey amuñu joytu nañ ko parce que def naa euh, toog naa man journal di ko wax xam nga lu journal wax daanaka siw na mais aussi ba tey gisuñu benn yoon boo xam ne réaction état mu ñëw benn jour xam nga euh, dafa dafa ñi kilifa yi fi nekk benn interview boo xam ne xam nga mun nañ ko leeralal li fi nekk dégg aussi monsieur le maire euh, ci ben plaidoyer bu mu def euh, à l'Assemblée nationale don na ci wax problème sécurité bi encore kon sécurité yaraax ñep yegg nañ ko Sénégal gépp yegg na ko président de la république defe naa lépp lu ñu wax assemblée nationale war na koo mën a kon defe manque de sécurité bi am quai de pêche président yegg na ko ñu koy ñaan nak mu dimbali ñu euh, ñëw ñu ci sécurité quai de pêche de Euh, xam nañ ne mairie yara yaraax même su même su nekkul mairie yoo xamante ne ñoo fi gën a manqué xaalis parce que yaraax bëri na ay entreprise te xam nañ ne entreprise yi lu mu tuut tuut nañ am luñ lu ñu fay mairie yaraax léegi dañoo bëgg xam ne nag est ce que yéen yéen a ngi sentir liggéey mairie yaraax si kee bi est ce que avant doot ngeen ko sentir wala loolu lu yàgg la mosoo leen ko sentir loolu laa bëggoon xam. Euh, quai de pêche euh, dafa nekk compétence su compétence su état. Euh, motax en général euh, ci amna ké kee wouté mais ké de peste de Hann euh 10% mom la mairie am ci ké de peste de 10% yoyu mu ngi wara a ci problème mbalit bék pour moy créer ni ñuy jëlee mbalit bék yu nonu yoyu moy euh moy li nga xamné mom la maire am ci ké de peste waaw quai de peste état moo ko ci compétence état tamit lay dox. mais état moo ko moom bi mu ñëwee da ko ne dafa ne euh, quai de pêche man maa ko moom mais dama koy delloo ci euh, mairie yi mais mairie yi aussi duñ ko doxal dañuy jox acteurs yi yi fa nekk ñu doxal quai de pêche voilà euh, ci biir loolu mairie yi doxaluñu quai de pêche acteurs yi fa nekk ñooy doxal quai de pêche mais mairie yi nag am na mairie yu bëri yoo xam ne pourcentage lañ am ci quai de pêche soit cinq pour cent wala dix pour cent wala quinze wala affaire yooyu mais euh, mairie Hann Bel-Air dix pour cent la am ci quai de pêche de Hann bel te nag mosu ko jël. parce que toog naa ak moom ay réunion réunion réunion mu wax ci kanamu ñi fi nekkoon ak ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey mosu ko jël dix pour cent yooyu da ko bàyyee quai de pêche xam nga léegi nag euh, loolu aussi man du ma ko d' accord parce que li tax du ma ko d' mooy comme mooy maire bi. 10 pour cent yooyu da ko war di jël ba pare dafa war a am taxawaay boo xam ne da ko war di taxaw ci quai de pêche bi mais pour l'instant mairie bi moo yor euh, comité ad hoc bi mairie mooy président maire bi mooy président bi mais nag acteurs yee koy doxal quoi ci biir voilà noonu la quai de pêche demee ak côté mairie de la Hann Bel-Air mairie de Hann bel euh, euh, su fekkee mairie bi salubrité moo moo moo ko tax a jóg seetlu nañ quai bu mu nekkee fii. Euh, fii nii moom xawoon na tilim bu baax a baax a baax te da gis mbalit yi di fa tegaloo am na mbalit yu nekkoon foofu mais rarement ngay gis kenn di ko jël donc li mu wax moom waa am na mën nañ ko firndeel. Euh, dañoo bëggoon wax ci ñaaxum jën bi parce que mën nañu wax kee kee kee waaye jën moom su amul moom kee sax du am parce que seet nañ ne euh, depuis quelque temps fii yaraax jën yi moom presque amatul jën. ñi ngi naan euh, à cause accords yu état bi conclure la ak euh, européens yi wala asiatiques yi wala yeneen dëkk yi moo tax fii ñu manqué jën dañuy gis sax ba daa am ay nappkat yoo xam ne dañuy dem ba ay Mauritanie parfois ñu leen fay tiireeg yooyu noonu léegi comme euh, yow nee nga euh, ni da si ñu doon jaay jën yu ndaw yi nga bokkoon maanaam da doon da ngay gis gaal wàcc nga fexe ba am jën toog di jaay sa côté noonu léegi dama bëgg xam ñàkkum jën bi nii na nga koy dundee ak bu njëkk ba jën yi est-ce que gënoon na am que temps yi. waaw ñàkkum jën bi moom fi mu nekk tar na lool tar na lool parce que ku xooloon yaraax bu njëkk ba ak léegi ni yaraax mel da sax waaru. dangay waaru yàllaax jën ji daf daan bëree bëree bëri ba ñu juug ko waa ñuy def ñuy liggéey macha allah mais léegi jën amatul gaal bu ñëwee day dem yóbbu fereem li muy indi si jën du bari bu ko defee ñu jënde ko lu cher pour jaay ko génn si sax problème la jaay ko génn si sax problème la waaye ginnaaw ñun dañ ko tàmm mooy suñu métier moom la ñu xam dañuy nekk si géej gi rek luñ ci am ñu nekk ci bu ñu amee ñu xam ne yàlla indi na tey jën ñu liggéey ci bu fekkee ne toog nañ tamit gisuñu jën ñu toog noonu rek ba ñibbi jot ñu dem ñibbi suñuy kër ñu ngi ñaan nag état nañu dimbali bu fekkee ne lii da ko accordé woon na na xoolaat beneen solution parce que daal accordé sa réew mënatu la am benn jën te bu njëkk yaraax da daan fees dell ak jën léegi mënatuloo am benn jën jën yu fi ñëw cher a cher a ba yow mi koy jënd sax dalay jaaxal wax dëgg yàlla ku ñu ci dimbali ñu jël ku ñu ci dimbali ñu jël ñun jigéeni yaraax jën rek lañu xam te jën rek la ñuy liggéey ba ñu fi nekkee ba léegi si jën rek la ñuy liggéey kon nag bu ñu toogee ba amatuñu lu ñu liggéey mooy coono dikkal nañu parce que ñun ñu gannaaw yàlla ak yonanta bi ñun ñooy dimbali suñu góor yi si kër gi ñun ñooy dimbali sunu góor yi si kër gi te bu ñu toogee jën amatul daal dinañ dinañu jaaxal te sonn nañu lool wax dëgg yàlla ku ñu ci dimbali ñu jël. Euh, comme jën bi nu mu manqué nii nan la surtout mareyeurs yi dund di dundee parce que xam nañ ne yaa yaa fi toogal mareyeurs yi yaay président mareyeurs léegi mareyeurs nan la dundee ñaxum jën bi. waaw makum euh, jën bi metti metti rek parce que aussi euh, ku xam mareyeur tamit xam ne moom dooleem lay jaay te xaalisam aussi lay liggéey. en général bëri bëri na marier yoo xam ne kenn accompagné wu leen euh, euh, tey jën bi euh, xaw a raar lool ci Sénégal da ngay toog six mois wala sept mois da ngay gaare sa oto oto boobu du yëpp jën xam nga marier bu toogee six mois wala sept mois otoom yëbul jën kooku problème la parce que loo bu fekkoon sax da nga denc lu dul jeex loolu euh, mënul fekkee six mois yi wala sept mois yi kon euh, rareté jën bi xaw na xaw na yéeme rareté jën bi tamit li tax mu ñëw li tax mu am bon après dinañ ci xëy na dinañ ci dem euh, mais instant bi ma wax ak yow rareté jën bi metti na ci ñàpp waaw surtout mareyeur parce que boo ne mareyeur danga yóbbaale micro mareyeur parce que bu mareyeur amul jën micro-mareyeur bi aussi sax xëy na au moins mooy xaw a tane parce que tuuti moom euh, gaal gi mun na ñëw indi tuuti loo xam ne mareyeur bi du ko mën a jënd moom micro-mareyeur bi jënd ko détaillé ko jaay ko. Euh, parce que fi mu toll nii euh, ci lima jàpp dafa am ay accords yoo xam ne tey état du Sénégal mu ngi koy signé. ak Union européenne di ko signé aussi ak chinois yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo fi nekk xam nga. Euh, muy lu xaw a doy waar loo xam ne bu tey euh, bato yi nga xam ne ñooy napp ci géej gi dañ leen dañ leen délimité dañ leen limité woon léegi dañ ne woon de douze mille mailles na fa bato yi di nappee de six ñu bàyyi ko di nappee de douze mille mailles. Euh, est-ce que mën nga leeral luy maay parce que am na ñoo xamante ne xamuñ lu bëri si affaire napp. voilà merci maay mooy kilomètre presque de douze mille kilomètres. Euh, de de douze kilomètres ak de six kilomètres comme niñ ko ñoom lañ ko noonu lañ ko découpé woon bato yi dañuy nappee euh, plus plus de douze kilomètres jëm kaw léegi euh, gaal yi de six kilomètres jëm kaw noonu lañ ko découpé woon mais léegi da ngay gis gaal yi fi mu toll nii fi ñuy nappee mook bato yi ñoo fay bokk di nekk waaw mu xaw a bari trop nag bateau yi xaw a bari aussi ci géej gi lool di gaañ sax nag wala ñuy rey. Euh, mool yi nga xam ne ñooy nekk ci biir ndox mi euh, parfois nga gis bato bu yéeg ci kaw gaal parce que dañoo bokk fi ñuy nappe te gaa te te euh, bato yi dañ leen woon nañu dem haute mer maanaam ci biir géej di fa nappe mais léegi dañu ñëw ba ci biti géej gi fi gaal yi di nappe ñu fay nappe yooyu aussi day indi problème ci biir rareté rareté jën boobu aussi en tant que mareyeur dinaa ci dox tuuti ci côté mool yi. xam nga parce que bu fekke ne tamit yalla dafa dogal jeun bu ndaw am euh, wara mag euh nga ray jeun bu ndaw bi yaa deg usi aussi day indi jafe-jafe ci walum ci walum jeun booy wax bato yi tamit da ngay wax ñi nga xamne ne aussi ñom ñom nga nekkandool moy mool yi nga xam ne ñoom ngay euh jeun bu sew bi fim tolni li ci dé bari na trop trop trop ci Sénégal waaw euh, yous lañ ko wax yous bi yous bi. yuus bi dee ci Sénégal bari na trop parce que du yaraax rek Sénégal gépp fi mu toll nii am na instant boo xam ne boo fa demee euh, gaal bu teer rek yuus boobu lay teeral te yuus boobu. voilà te yuus boobu euh, moo war a màgg doon jën loolu aussi ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax. Euh, si jën yu ndaw yi dee si yooyu laa bëggoon wax parce que yaa ngi wax mool yi mais war mën nañu wax ne waroon nga njëkk wax si si yu mag yi parce ñu ngi leen. Euh, autoriser pour ñu pour ñu nappee waaye léegi damay gis ne euh, ñoom dañuy dañuy jël maanaam dañuy ñëw rek jël en seen kii seen fiil yi dafay dafay ngand seen mbaal yi dafay ngand léegi damay gis ne dañuy ñëw jël ñoom jël jën ñu ndaw ak yëpp dañuy jël. léegi mun nañ wax ne si moo moo li tamit ni ngi def erreur mais mun nañ wax ne erreur bu gën a mag bi mi ngi jógee si euh, si bateau yu mag yi léegi yow lan nga lan nga yaakaar ne état du Sénégal war na si mun def dara ba kii bateau yooyu noonu arrêté li ñuy def. bon euh, yàqu-yàqu boobu sax euh, ci li may gis foofu lay njëkkee parce que bateau bi day yor benn mbaal boo xam ne même day da koy da koy sànni. kër bi nga xam ne foofu la jën bi dëkk sax bato bi kii euh, mbaal bi da koy yàqaale parce que jën dafa am dëkkuwaay te bu fekkee da ngay mbaal jën bi yàqaale dëkkuwaay bi xam nga léegi jën biñ la autorisé bu fekkee da ngay mbaal da ngay mbaal rek mbaal moomu ngay mbaal da ngay indiwaale jën boo xam ne soxlawoo ko muy jën bu sew bii mais bu ñëwee au lieu que nga fexe jën bu sew bi dellu ci biir géej gi da nga koy dugal sa biir bato tànn li nga soxla. li ci dess bala nga bala nga pare ci li nga soxla mu dee xam nga té day doon ay toni toni toni toni yu dul jeex yo xamné soxla woko lolu dang koy muju verser wat ci bir géej té te bu dé lay doon kon déjà aussi lolu yàqu-yàqu la bo xamné kenn kenn mënu la wax fu mu toll état du Sénégal ñu ngi koy ñu ngi koy lu ngi koy appel ci façon napine bi façon napine bi rek la wax bu ma façon napine bi euh, bokku na ci gal bi bokk na ci bato bi mais bokk na ci mool bi nga xam ne moo yor gaal bi ak mool bi nga xam ne moo bato bi il faut ñu jéem a xool façon nappin bi naka lañ ci naka lañ koy e, gérer waatee parce que tant que xooluñu façon nappin bi rek jën boobu ñuy soxla dootul fi mun a am mukk loolu du mën a nekk parce que jën bi instant biñ toll nii dëkkuwaay ñu ngi koy yàq euh, euh, jën bu ndaw bi aussi ñu ngi koy rey kon déjà fi mu toll nii pour ñu am jën bu mag biñ soxla day doon problème. Euh, sëñ Diouarès li nga wax am na importance parce que leeral yi am na importance bu baax a baax parce que man mii nii toog euh, mun naa jàppoon naa ne jën yi amuñu woon ay dëkkuwaay dama jàppoon ne jën yi si géej bi rek la ñuy nekk di kii dama xam ne dëkkuwaay yi moom si tele yi rek lay yem si mike yi yooyu mais leeral moom am na solo mais kon war nañ lancer euh, appel état comme ay dëkkuwaay yooyu noonu ñuy yàq. parce que leeral yi ñu si joxee leeral yu yu am solo la parce que am na yoo xamante ne moom xamuñ ko woon si si géej gi wala si accord de yooyu noonu ñoom leeral nañ ñu si ba ñu ba ñu xam si lu bëri léegi xam naa dañuy mujjee tàggoo dañuy mujj tàggoo rek après ñu jox suñu euh, invité yi ñu tàggoo bisimilah. ñu parce que daal lii dafa baax sax si gox di jóg di gëstu ba xam gox ba nu muy doxee ak nu muy demee. waaw euh, ñu ngi sant euh, ñëpp ah di gërëm ñëpp euh, di wax ne rek émission bi am na solo vraiment aussi yéen question yu ngeen ñi laaj am na solo trop kon dañuy def rek sant